Famara yi ñu ngi lay nuyu. nga nekk journaliste waaye itam analyste politique tey juróom benn weer gannaaw ba ñu defee élection euh, locale yi tey Sénégal organisé waat euh, beneen élection di jogante élection législative bi mu mel ni rek réussir nañ li nga xam ne euh, moo di organisation bi ban jàngat nga am ci ñaari élection yi nga xam ne jegeyantoo na li ñu mën a jàngat ci euh, élection yi Sénégal di réussir loolu dafa nekkul sa information parce que Sénégal yàgg na mhm. di organiser ay ay élection euh, am na léegi euh, beneen enjeu boo xamante ne xale yi mooy jeunes yi ñoom dañoo ñëw commencé di xam loo xamante ne wala di imposer ñoom seen ci li ñu war a doxalee si suñu dëkk yi donc euh, élection locale yi dañ ko réussir élection législative yi dañ ko euh, réussir loolu gàcce ngaalama ci administration bi même si dem nañu ba à un certain moment ñuy accuser administration bi def ñu ñu lëkkaloo wala di commune euh, ak waa pouvoir bi mais yaakaar naa ne tey bu ñu demee ba ñu gis li ñuy gis félicité la ñu xamee ko noonu ñu ni quel que Euh, mu am ay nit ñoo xamante ne ñoom mënuñu bañ di euh, parparloo mais Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne tey ci Afrique même bu dee dañuy xool ñu am ay rëkk-rëkk wala ay wax yoo xamante ne wala ay jëf yoo xamante ne dem nañu ba yenn mbokk yu nekk Afrique di tiit mooy euh, ñu wër nde tey Sénégal nekk na wane na que ñoom ci euh, dëkk yi gën a mag ci démocratie même mu ne suñu démocratie dafa xaw a euh, fragile mooy dafa xaw a parce que boo ko laalee rek euh, bu boo moytulee rek mu tëj donc loolu il faut que ñun ñëpp ñu liggéey ci ñu moytu ci ñu xam ni tey ñii di wax ay njàngin démocratie ñoom ay Euh, trois siècles deux siècles la ñuy def mooy plus de deux cent trois cent ans quatre cent ans la ñu defar seen euh, démocratie ñun ñu ngi ci soixante deux ans d'indépendance donc euh, lu rafetlu la même si am na loo xamante ne il faut que ñu gën ko dëgëral pour ñu éviter yenn tension yi Mhm. Euh, tey euh, naka nga jàngatee victoire bi nga xam ne euh, intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal amal nañ ko fii Sénégal département yu bëri ak yenn gox yu bëri ñoom ñu remporté ko ak ñëwup maître Abdoulaye Wade di ancien président de la République gis nañ consigne tam yi nga xam ne moom la joxe mu ne mu mel ni rek parti démocratique sénégalais dafa mel ni lu lu jugaat. waaw parti démocratique sénégalais dafay jugaat parce que ñoom dañ lañu xam ni ñun toll nañ koo xamante ne bu ñu bàyyee euh, Macky Sall mooy président APR wala secrétaire général APR ñu ñuy jëmal parce que am na ay waxtaan ci diggante Abdoulaye Wade ak moom kenn du ko weddi euh, parce que Abdoulaye Wade mu toll nii am na jëm euh, mag la moom ambition bu mu am mbébétoom mooy doomam quel que soit li ñuy wax ci kawam li ñu teg ci ci deram doomam ñëwaat fu mu nekkoon ñoo bokk ci champ politique sénégalais mu xeex ak euh, moromam ni koy ñeneen ñi di defee mais danga de comprendre que man su ma bi di seetaan li ñu waxante sama diggante dañuy xool ay yenn accord yu ñuy signé wala yenn protocole yu ñuy signé pour que jàmm nekk seen diggante ñu gis ni ba léegi xëy na bu ñu demee ba toll fu ñu koy euh, valider Macky Sall euh, changé Euh, de de de de comportement mu demande encore affaire yi mu mu mu gën a yàgg yàgg te Karim Wade fu mu toll nii commencé na yàgg yàgg na lool ci euh, comment dirais-je euh, Qatar te moom ñu ngi jëm ci deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre bi muy jóge mu ne léegi am na loo xamante ne mu ngi ñëw élection locale yi da bàyyi na c'est peut-être ñu am ci coalition mais léegi comprendre na enjeu bi mooy législative yi il faut mu am benn euh, cohabitation doole yi il faut que ñu mu yem diggante opposition ak euh, waa Benno Bokk Yaakaar ci la dem xool jàngat ñu ñu nangu ñu am intercoalition intercoalition boobu dem na ba léegi gagné ay département yu bëri département yu bëri yoo xamante ne xëy na local yi wane na ko mais tey am na lu bëri loo xamante ne dañ ko renforcer ci yenn gox yoo xamante ne Benno Bokk Yaakaar moo ko doon gagné. Hmm. donc mu nekk stratégie boo xamante ne intercoalition boobu euh, indiwaat na doole euh, parti démocratique sénégalais mais parti démocratique sénégalais am na doole boo xamante ne yooyu moo ko euh, génne ci guute boobu donc guute boobu booy ci génne est que ñu ñuy rumbandaat ci di wax que am na retrouvaille parti ci famille libérale est-ce que ma euh, Abdoulaye Wade dina defaat même erreur moom ni ko sumb depuis ay ay ay ay at ñu ne il faut que parti libéral mais famille libérale retrouver ñu mën a gérer dëkk bi pour cinquante ans donc est-ce que loolu dina ñëme encore wala ñëmeat encore wax ko d'autant plus que ci beneen côté bi mooy euh, affaire ak euh, yeneen parti yi nekk libéraux yi ñooñu nekkuñu di jouer franc jeu donc ñu gis sama intérêt ci côté boobu la nekk donc yaakaar naa ñoom su mu toll nii ñu defaat beneen erreur ñu yaakaar ne famille libérale bi ñu refusé wu. Mhm. mais dina xool que moom pour que doomam ñëw parce que loolu kese moo ko teg fii à son âge boo ko xoolee nga xam ni def na lu ñu mën Sénégalais ñu ngi koy dégg ba léegi mais ambition mooy Karim Wade ñëwaat mooy Khalifa Sall lépp lu ñu koy tuumal ñu xool lu ñu koy réglé pour que au moins deux mille vingt quatre doomam muy Karim Wade mën a euh, bokk ci élection yi euh, Khalifa Sall a bokk même si fu mu toll Ousmane Sonko jël na avance bu bu Ngande vis-à-vis bu mu def ak waa Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Euh, Famara euh, tey euh, cohabitation mënul ñàkk mais est-ce que cohabitation boobu dafay dépendre ci coalition wallu Sénégal. bu baax a baax coalition tey wàllu wàllu Sénégal comme ni ma ni ma ko waxee Abdoulaye Wade moom mi nekk. Euh, seen euh, yaakaar nekk tête de liste nekk xam na ni Abdoulaye Wade ñëwul pour nekk assemblée nationale même bu dee sax moom su mu toll nii nañ ko député mais moom li muy def mooy moom bu génnee moom mooy téye les cordes euh, ko yàggee def moom fu laaj waa wàllu ñu xool fa moom mooy yor bët yi moom moo leen di ne xool leen fii xool leen fale stratégie bu ñu teg ak euh, yooyu ba moom mu comprendre ni mënuma am yaakaar ci euh, waa Benno Bokk Yaakaar parce que ñooñu dem ci moom yàgg na ñu may nax donc tey dem naa ci yooyu askan yi ñoom tax nañu ba tey mu mën a am cohabitation même bu dee sa cohabitation Benno mooy euh, jël majorité bi mooy relative parce que bu ñu demee di xool résultat yi dina xaw a jafe jafe Euh, Benno Bokk Yaakaar am euh, majorité écrasante comme président législative donc dina am benn euh, équilibre ci député yi mooy yenn luwaay yoo xamante ne da ngay ñëw rek nga nelaw ba gars yi jóg rek ñu ne voté la nga jóg bu voté loolu mënu mënatul am parce que jeunesse yi dafa dañoo bëgg yenn genre député yi certainement tey wàllu dina nekk arbitre moom mooy toog mais peut-être ragal bi gars yi ragal même analyse politique yi ñu ngi ragal ëllëg ma Macky dem ba à un certain moment mu ne euh, moom moom mu mu yaakaar ne euh, moom euh, dinañu peut-être trahir mm-hmm. bi mooy intercoalition bi intercoalition du ay coalition yoo xamante ne dañoo sëy sëy boo xamante ne ba faw ay nit yu dëggante la ñu ne ñoom dañuy jël suñu doole pour mën a équilibrer li doole ba Benno Bokk am doole ci euh, assemblée nationale bi donc wàllu dina nekk euh, benn arbitre arbitre boo xamante ne yéen ñun waaye bu dee opposition gis nañu ni arrangé wul euh, population yenn population sénégalais yi il faut que wàllu muy nekk en troisième position ci nombre de députés ñoom ñu jéem waxtaan te waxtaan boobu ñoom ñu dem di waxtaan ak euh, waa Benno Bokk Yaakaar su boobaa waa euh, sénégalais yi dinañu def comme ni ñu defoon gis nga fii ay maire yoo xamante ne dañuy élire ci bannière ñu wàllu wala bannière yooyu ñu dem ñu ne ñoom dañuy topp euh, Benno Bokk Yaakaar alors que yow li tax nga nekk maire yooyu moo tax wala wàllu moo tax donc tey waa wàllu bu ñu defee erreur ba ñu ne ñoom yenn intérêt la ñuy Dakar dem di lëkkaloo ak Benno Yaakaar mu euh, yaakaar naa ne mooy euh, de waa parti libéral notamment waa euh, parti démocratique sénégalais donc yooyu xëy na nit ñi dinañ ci xaw a ragal mais yaakaaruma tey enjeu bi mu toll nii ak Ablaye Wade ni mu déggee Karim Wade ñëw mu mën a peser ci assemblée nationale ñoom dinañu def erreur di dema at demaat encore di lëkkaloo ak waa Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom dañoo jàpp ni waa Benno Bokk Yaakaar di ñu respecté seen engagement di ñu respecté accord yu ñu signé notamment tey lu mu euh, métti métti métti dinañu toog di waxtaan ak euh, seen intercoalition bi mooy Yewwi Wallu pour benn ak équilibre ci assemblée nationale. d'accord Famara nemmeeku nañ ni participation bi ci élection législative yi demeewul noonu euh, lan moo waral faible taux de participation bi. waaw loolu moom mu warul bett kenn xam nga par exemple élection locale élection gox goxaan yi la nit ki dañuy ñëw ne euh, mairie bu Ziguinchor bu Dakar bu beneen gox ak fii nii kooku mooy nekk seen maire. ñu ne la euh, conseil euh, président conseil euh, départemental kooku bu nekk ak yéen ñu ji dundu ngeen koy kii nii même bu dee député tamit am na solo mais député sax am solo parce que mën a am dundu bu bu mu mu mu mu jëm ci sa intérêt baaxul mais sénégalais voilà ci histoire même élection muy Sénégal mu yenn dëkk yi. nit ñi élection locale la ñu gën a génn ak élection présidentielle élection législative euh, parce que tey ñooy at na wërnga këpp euh, yenn hémicycle yi euh, député yi nekk ko lu dul teesante wala wax loo xamante ne du intérêt population yi ñu ñu dem ba ñu ci bëri dañoo dem ba démotivé mais ñu ñëw ci Sénégal bu ñuy ne 31 décembre dañuy voté ñëpp ku nekk xam xam na ni que 31 décembre euh, hivernage la mooy euh, taw la donc euh, mën taw te taw boobu démb xoolal tey lundi bi naaj baa ngi nii hmm. bu Casamance la dafa xaw a nuagé naaj bi génn donc démb mu am taw taw yooyu nga xam ne ñun ay <laughs> nitu sayel sayel yooyu nañu hmm. peut-être Casamance yi say si nii mën nañu génn mais xam nga Sénégal kenn dëkkul fenn. mën hmm. nga nekk Saloum nga nekk euh, Fouta nga mën a euh, nga dëkk euh, Ziguinchor donc yooyu yëpp nekk vice ta donc taw bi ñëw na encore tax ba ñu bëri ñu génnoon peut-être ngoon la ñu génne mais c'était trop tard parce que loo xamante ne matin la génne ngoon ah on a que à peu près trois heures de temps quatre heures de temps loolu mënul tax ba ay nit même bu dee ko dañoo bëgg voter ñu voter mais aussi. comportement treizième euh, douzième ak treizième législative mooy député yi seen euh, xar xar kanam bi ñu won Sénégalais yi tax na ba ñu bëri ñoom dañuy jàpp ni député sax man kenn mënu la euh, jógee gën a dem di di di donc trois facteurs yooyu nekk na loo xamante ne posé na ci taux de participation bi mais gis nañu ay hommes politiques yoo xamante ne ñoom ñoo tax ba yenn taux yi sax du ma du ma du lim ay nit mais xar kanam treize douzième ak treizième législative tax na ñu bëri ñu ne non man kenn mënu ma poussé dana jël sama carte di ay euh, député donc euh, image député moo dem ba commencé yàqu mm-hmm. donc euh, mu am beneen message boo xamante ne moom moo ñëw peut-être mu tax dëkk donc dangay ngay gis trois yi mooy élection législative gars yi bi ñu génn mais aussi xar kanam deuxième ak président législative li député wane foofu rafetul ci kanam sénégalais yu bëri mais tamit yàlla def na ci nawet la ñu nekk donc loolu moo tax ba ñu mën a analyser que loolu ñetti facteurs yooyu tax au moins ñu am euh, tuuti baisse même bu dee ça en 2017 gis nañu ni que il y a un taux un faux taux de participation nit ñi dañuy dem ba cinquante sept pour cent mais loolu euh, tax na ba douzième treizième législature bi yàq ko dem ba nit xamatul euh, député donc ñu ñëw encore ñu am loo xamante ne li conseil constitutionnel def mooy dem Euh, génne ay ay liste yoo xamante ne da koy xaaj ay euh, xaaju liste moom moom pour l'histoire du Sénégal ñu ngi euh, donc mu nekk loo xamante ne bii koy ndaale la boo xamante ne nit ñi dem nañu dem ne bon ñii dañuy fooye Sénégalais yi te mu am taux d'inscription bi taux d'inscription bi ñu ngi ne ci fichier électoral bi ñu ngi à sept millions te Sénégal mu ngi toll ci dix sept millions donc dix millions de Sénégalais ñoom nekk ci fichier bi te loolu il faut que politiciens yi liggéey ci pour que au moins ñu mën a am ci dix-sept millions a am dix millions d'inscrits mhm. dix millions d'électeurs loolu dina mën a am benn visibilité ci ñun suñu démocratie yi ñu jëmee kanam. Mhm. mu am vraiment benn participation démocratique euh, bu mucc euh, ayib. d'accord Famara tey euh, résultat définitif yi génnagul mais gis nañ tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar mi Mimi Touré mi ngi réclamer déjà une large victoire jàpp na ni ci 46 départements yi ñoom Benno ñoom ñoo am 30 yi lan moo tax mu waral loolu. yaakaar na Aminata Touré muy tête de Bokk Yaakaar. erreur de communication la def beneen opposant ñënoo def loolu donc dans ce dans ce lan mooy euh, yëngu euh, cette sortie là donc moom dug génn na sans mu am résultat yëpp ñu mu ne ñoom ñoo am euh, majorité majorité relative majorité écrasante kenn xamul lan la mais nga gis ne ñoom Benno Bokk normalement ñoom nekk di diriger dëkk bi waruñu génn di wax ay résultats yoo xamante ne ëllëg le lendemain wala euh, les heures qui qui ont suivi gis sorti euh, Barthélémy Diaz moom dafa ne lii li ñu bëgg def kenn du ko nangu donc tension commencé na tension judd na mm. nga xam ni euh, peut-être dañu yaakaar ne waa waa opposition en Afrique notamment notamment au Sénégal particulièrement au Sénégal opposition peut être la ñuy ni ñoom ñoo war a indi tension mais gis nañu cette fois ci lan mooy enjeu bi lan la Benno ragal ba ñoom à une heure deux heures du matin di def déclaration boo xamante ne amoo résultat yi yëpp parce que compilation yi ñu ngi koy def te annonce mel ni France boo xamante ne mën nga jóg léegi-léegi dem vote dix huit heures à dix neuf heures benn une heure de temps lañ la may nga xam vraiment résultat yu yu yu yu officiel en tout cas résultat yoo xamante ne kenn du ko du du ko du ko weddi mhm. loolu tolluñu foofu donc ñoom war nañu apaiser la euh, la tension ñoom war nañu moytu yenn déclaration yi ñu bàyyi opposition peut-être ñu def déclaration ñoom ñu apaiser mais contraire la ñu gis mhm. ci élection législative yi ñoom waa Benno Bokk nga xam ni donc Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci posture boo xamante ne neexu leen parce que ñoom dañoo gis ni ci yenn gox goxaan yi wala yenn région yenn département yi ñoo xamante ne dañoo bokk yaakaar moo nekkoon foofu téye fa dem nañu ba ñu bëri euh, waa opposition fokkati ko seen loxo donc dans ce cas tension lay jur tey bi nga gis à partir de lundi Barthélémy Dias euh, euh, sur le champ dafa réagir mu indi ay tontu bu forox boo xamante ne bëgguñu dégg yu mel noonu ci ay opposition bëgguñu dégg loolu ay genre kaddu yi yenn kaddu yi ci ay ay homme politique je pense que homme politique dafa war a comme ni euh, solo ba rafet mu wodd kàddoom mu gën a rafet parce que ay nit yu bëri ñoo ko yaakaar ay nit yu bëri ñoo leen yaakaar mais malheureusement ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoo indi euh, tension yi te loolu à partir de maintenant dina nekk euh, benn dina ëllëg Sénégalais yi parce que opposition Ousmane Sonko wax ak kenn waxagul donc dina nekk ay tontu wax tontu wax tontu ba de telle sorte que seen militants yi ñuy dugg ci seen scène bi gis nañu ñu am li xewoon euh, de euh, mars deux mille vingt et am na tension yooyu tension kenn soxlawu ko donc dans ce cas waa opposition euh, ñoo waroon a génn di contester mais yow nga génne joxe ay résultats yoo xamante ne gis nga ne ñu ne bu doon benn bokk yaakaar moo ko moo ko gagné mhm. mais ci réseaux sociaux yaa ngi koy gis ni ay euh, chiffres la ñu génne yoo xamante ne dafa weddi mhm. euh, li Aminata Touré wax donc loolu encore problème la Mbour au même moment waa Mbour bu benn bokk yaakaar Mbour dafa génne mais ñoom ñoo ñoo gagné euh, waaye yooyu bëggoon a def seen déclaration peut-être def nañu ko léegi pour démentir encore résultats yi donc dans ce feneen Louga ak feneen donc nekk na ay zone stratégique yoo xamante ne benn moo ko yor ñoom ñu déclaré ñoom ñoo ko gagné je pense que dina indi tension te ñoom waru leen parce que ñoom fu mu toll nii ba deux mille vingt quatre dañu war a euh, sàmm seen kaddu dañu war xoolaat ñoom seen taxawaay jéem a euh, xool opposition bu amee tension jéem a indi tension ñoom ñu jéem a régler du ay affaire yu tapet parce que ñu ngi dem ci ay exploitation pétrole ñu ngi dem ñu ngi wax affaire inondation ñu ngi wax affaire cherté de la vie ñu ngi wax ay problème yoo xamante ne ak euh, guerre Russie Ukraine bi ñu ngi nekk ci situation yoo xamante ne ak euh, changement climatique bi dina indi ay jiitu yaaxa mm-hmm. tey nit ñi fii Casamance bi nekk nii tey ñu bëri ñu ngi béy mais amuñu semence yu béy tey tey euh, état bi loolu la waroon a liggéey mu am ay semence yu bëree bëri bëri inciter population yi dem euh, béyi euh, béykat bi mu ngi bëgg euh, combler gap bi parce que après deux fii de deux mille vingt quatre deux mille vingt trois bu ñu ko liggéey dina indi tension ci cherté de la vie ñekk yenn denrées alimentaires yi loolu na dañoo war a régler que di toog fii ñu ñun ñoo gagné cohabitation dina am mm-hmm. même bu dee sax cohabitation relative la ci loolu la ñu war a liggéey pour que suñu démocratie Sénégal vraiment bu continuer di def ay résultats yoo xamante ne ci biir Afrique ci biir euh, àdduna nit ñi nañu euh, naw ci ci stabilité mm-hmm. ak ci jàmm quoi Famara Niasse Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm maa gërëm bu baax a baax di ah. gërëm Rewmi merci di fàttali euh, taskatu xabaar nga waaye itam analyste politique